ñàkkum fayantoo gañu doon ragal tàmbale naa xam ci réewum Sénégal allah ndax ginnaaw bu ñu taxalee ay këru jëwrin ci nguurug senegaal ni ki bërki démb libération moo ñu xamal na démb nag ay këru kilifa yu bokk ci kujje gi fañ leen a song taxal bokk na ca kër Ayda Mbóoj naka noonu kër Waali Bodian bu Pastef ñu ne déetawaay autoroute à péage ba fañ koo songu démb ak benn oto Senelec vox populi na safara sa fi mu toll ca kër kujje gi opposition l'observateur na gaañu fa ñoo fayu te loolu moo tax fa a dakkal yëf yi te dox ci jàmm vox populi ne kër Barthélemy Dias tamit fañ koo bëggoon a song waaye fa rëcc ndax garde kooram ya ñoo jàpp ña leen doon song fañ leen a mbuqi bañ nooy nepp ñu doon di leen jox takk der na ñaar ci ñi nga xam ne fañ doon song kër Barthélemy Dias dégguñ sax wolof fañ leen a jëlee bitim dalal leen ci benn kër responsable bu Pastef cent mille francs lañ leen doon fay te bitim réew lañ leen ko doon yónnee ba tax Barthélemy Dias ma ngay tëkku ne moom nekkut ku ñuy song te du moromu gaañe te pesum kanam borom koy fajal boppam ba tax ma ngi leen di xartu de ca gp yéen a kaay les secu yéen kaay dëggal ko naka leen jël nag wakaam la dëkk agent municipal bu Mermoz Sacré-Cœur la waa Pastef Mermoz ne loolu du dëgg ña ngay tuumaal maire bu Ndakaaru Barthélémy Dias ne fa ci manipulation la nekk ba pare ña ngay sàkku seen naataango yéen teg loxo ñu bàyyi leen na nga ko waxee ca Vox Populi leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne téléphone Ousmane Sonko ba ca message sam yegg le quotidien nee na gars yi fañ caa gis ay nit pare te Ousmane Sonko la ñuy liggéeyal fañ koy jàppale noonu ay journaliste ak ñeneen ba tey le quotidien yéen a kaay ne député yeewi askan wi fa ñoo ñaawlu passeport usmaan Sonko bi ak yeneen bagaasam yi nga xam ne takk der yi ginnaaw bu ñu ko jàppee fañ ko jël ci moom ba pare ñu mujj gis këyitam yi tasaaroo ci mbedd mi mu ngi fees dell ci internet bi loolu fa ñaaw kan moo ko joxe ak lu tax ñu tasaare ko loolu du yoon les si ko yéen a kaay ne ambassadeur bu Amérique France Angleterre fii ci Sénégal ñoom fa ñuy artu seen doom yi nga xam ne ñu Sénégal ñu bañ a génn bésu tey bii 31 mai ak suba premier juin ndax fa ragal fitna gën a takkarnaase ci réew mi fa ñoo ci ñoom ñu jënd lekk lekk gu bari denc seen kër yi te toog info yéene kaay ne Alioune ma ngay artuwaat ne yoon wi ñu xaw baaxut nañ deltu ginnaaw lu ko mooy Sénégal dana tàbb ci guuta goo xam ne fay xëpp loxo ah, yaw seetal Ousmane Sonko ba ñu càpp këram tëj ko du dugg du génn te kenn du ko seeti Alioune nee na wax dëgg yàlla loolu du dëgg du yoon takk dere amuñ sañ-sañ boobu nañ ko dindi te faa bëgg tamit ñu amal dialogue ngir andi jàmm ci réew mi ak dal bugaan gay dani ci tribune yéene kaay na ko man de d'accorduma ci dialogue bi moo tax man du ma dem te dialogue ba pare tamit taxaw na ñetteelu mandat du fi xamee jaay doole gi ñuy def Ousmane Sonko tamit ñu bàyyi ko kàddoom yaa ngi ci biir yéen a kaay ba le regard a kaay ne woon faa xamul dialogue bi njiit mi woote kan lay xamal njëriñ GP yéen a kaay ne Barthélemy Diaz moom da nee du dem ca dialogue ba waaye Khalifa Sall moom fay dem enquête yéen a kaay ne dialogue bi fañ koy xamal ci jamono joo xam ne réew mi fa yëngu tension moo fi xam de laas yéen moo fa ñuy amalee seen waxtaan ñoom it te la ca gën fës mooy fexe ba ñetteelu mandat njiit du ko fi xamee ñu ñu tëj kaso ñu bàyyi leen libération na ko voilà fi mu nii gis nga ñi na ko presque ñëpp nag ay farandooru Ousmane Sonko lañ Pastef ah, seetal benn waaye bu ñuy wax midu wal fajri fañ koo invité seen émission ba fa wax ba pare mu génn rek gaa yi jàpp ko Mamadou Faye ñu gën koo xam ci Momo doomu Pikine moom it fañ koo teg loxo naka noonu seeni seen ak ñeneen ba ci ñi xamante ne ñoo àndoon ak Ousmane Sonko ca oto ba bañ koy jàpp ñoom it seen garda yu ba fañ ko yokk ba tey ca ngeexoox njiital Pastef ba Mamadou Gaye moom it diggu guddi lañ ko jàpp lu ëpp ñeen fukki waa Pastef yi jàpp na leen ci ñaxtu bi weesu Aliou Sané bu yaanaa maar moom tey lañ koy defeere lii yéene kaay ne jëwriñ ji ñu dénk wàllu yu nekk bitim réew nga xam na ñoo yónnee xaalis dimbale ñi nga xam ne ñooy taxal dëkk bi seen message yaag yëpp jox nañ ko réew mañ nekk kilifa ya ngir ñu topp leen jàpp la jàpp nag te sénégalais yëpp di ko xaar mooy ni ki suba benn fan ci weeru soin la joxe dogalu atte diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko exclusif yéene kaay ne attekat ba ñu wax Issa Ndiaye moom fi mu toll nii nee na fañ koy tëkku ak njabootam te moom nekkut ku ko war a atte gars yi fañ koo jaawale àllintin ci info yéene kaay ne ak mu ci mënti doon nañ fexe jàmm xam fi ak dal ndax lu dul jàmm jàmm ko gën te xay yem ci bopp